asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu oustaz benn Omar maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar eh, di la wax ne suñu malaat bi Mariétou Kandé yóbbu woon nañ ko pour xool xool yaram bi xool fu feebar bi toll waaye yàlla dogal na ne ñi fi nekk docteur yi nee nañ de ñi ko xool nee nañ mënuñ koo opérer fii parce que buñ ko opérer fii risque na pour mu am jële ci Eh, paralysme parce que mënuñ ko opere fii donc moo taxoon maa ngi tàllal loxo jaamu yàlla yi di la tàllalal loxo ginaaw bi ñu ko tàm tàllalee yàlla borom bi tabaraka wa taala ah di delluwaat ci jaamu yàlla yi rek ñi nga xam ne ay bolon bonne volonté lañ ji bëgg a dimbali ku sonn dañu xam ne mareetu instant yi nii coono gi jéggi na dayoo saw yi day lakk pooj yi ba pare tamit euh, vraiment ñu nit suñu doole toll foofu bëgg nañ ko dimbali ndax suñu rakk la waaye doole bi toll foofu donc moo tax it ñi lay tàllalaat loxo di tàllal loxo jaam yàlla ngir ñu dimbali Mariétou euh, comme munuñ ko opéré fii ñu dimbali ko mun a voyager ngir mu mun a tàggoo ak feebar bi ndax ba léegi de euh, fa mu nekkoon la nekk donc ñu yàlla yi bu baax a baax yow it di la tàllalaat loxo ngir nga dimbaliñ ci bu baax baax ndax it munuñ ko fajee fii donc bu fekkee ne munuñ ko fi faj ça veut dire foog mu voyage te ñun suñu doolee tollul foofu suñu loxo tollul foofu donc bëgg nañ ko dimbali waaye nag fi mu demee même fi ñu dëkk nii dañu ko aal donc bu fekkee ne dañu laa aal fi nga dëkk nag yaa ngi xalaat un jour viendra nga jóge fi nga nekk dem fi dem dëkk ji ci benn chambre nga war a nekk ak malaat bu mel noonu ak sa soxna ak say doom dafay gën a métti donc moo taxoon ñuy taal loxo jaamu yàlla yi wala ñu tee ko rek tee ko yorandikum ko mm, eh, di jënd kuus di jënd saabu ba fii ko yàlla yemale rek donc balaa boobu nag ñu ngi tàllal loxo mbokk jullit yi di leen ñaan ngeen dimbaliñ te yàlla tax ci mariyatu maa ngi lay nuyuwaat oustaz bu baax a baax di tàllalaat di tàllalaat loxo rek ci jaamu yàlla yi wassalaamu aleykum wa rahmatullah